salaamaaleykum mbokk internet daleen ak jaam ci Sen Sport 221 la jógee tàmbaleeg Nottingham Forest di club bu Cheikhou Kouyaté ak kii di Moussa Niakhaté dal nañ leen di teg ay daan Premier League bi ñoo dal di def lu nu mel dal di coppati ci seeni poñ lu toll ci ñeent comme nañu defoon Everton ci jamono yee ñu weesu ñoom nag ñeent poñ la ñu dal di jël ci ñoom gannaaw bi nga xamee dañoo gis ne daal dañoo xëtt charte yi ci li nga xam ne mooy wàllum English Premier League bi bu ñu xoolee ñoom dañuy jënd maanaam daal li nga xam ne xëy na mooy li ñu jënd voilà ak li nga xam ne moom lañ waroon dugal ci koppar dafa am li nga xamante ni xëy na muy ak wuute bu baax a baax te loolu yëpp nekk ay mbir yoo xamante ni voilà dañ koy contrôler foofule ci English Premier League bi kon daal dañ leen di teg ay daan voilà ñoom nag amaana xam ne mooy appel lu jëm ci tonnes bi ñu ko daggee lu toll ci fukk ci ay poñ bi ñu defee appel am na yenn ci ay poñ yu ñu leen delloo donte ne du lépp waaye Nottingham Forest moom ñeent képp la ñu jël ci ñoom dinañu wéy di topp mbir moomu ba xam fan lay mujj. ki nga xam ne nag moom la ñuy wax Bryan Zaragoza muy gone gu xarañ googu nekkoon ca Granada moo football lool te ñii ba waa Bayern Munich dal di koy jënd. ci janvier bi moom nag nee nañu ba mu fa demee ba léegi daal li tax ba mënul football nee nañu ki nga xam ne mooy Thomas Tuchel mënul wax sax ak moom ndax kat ki nga xamante ne mooy Brahim Saragossa mënul làkk li nga xam ne mooy allemand te mënut lak tam li nga xamanteni ni mom lañu wax anglais ñaari mbir yépp nek lo xamanteni ni la ci ay mbiram fimni ni nak nañ ci jang mu metté metté la nek di jang li nga xamanteni moy lak wo nga xamanteni mom lañu lak ci Allemagne ak li nga xamanteni moy anglais bi nga xamanteni ni daanaka fo dem ci aduna bi mom lañu lak làkk foofule léegi ñaari lak yi mom déggul ci ben motax mo ngi jang te it mo ngi entraîner ak équipe bi nak di entraîner ni waré wala voilà nak ci and ak lool yépp amul li nga xamanteni moy chance ngir dugg ci terrain bi ndax ki di Thomas Tuchel mënul wax ak mom gannaaw bi nga xamanteni dañu wuute lool ci wàllum déggante ci wàllum làkk bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi. ki nga xamante ni nag moom la ñuy wax Antoine Griezmann dafa dal di forfait ci match yi nga xamante ne France mu ngi koy amal ci bés yi ñu dëkkmal ñaari match yëpp du ci bokk voilà moom kii di Antoine Griezmann bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi dafa am blessure boo xam ne day mu ngi ko jëlee ci match bi ñu doon am ñoom waa Atlético de Madrid seen match boo xam ne ñoom dañ leen cee dal di dóor waaye Antoine Griezmann dal di am blessure nee nañu ci CV bi maanaam daal ci doojoor wi foofu la dal di am li nga xamante ne mooy ab gaañu gaañu léegi nag forfait na bokkatul ci li nga xamante ne mooy groupe bi léegi nag nee nañu ci waxtu yi di ñëw dinañu xam ana kan moo koy remplacer voilà ci li nga xamante ne mooy équipe nationale bu France kii nag ñu ngi koy wax Acer bi moom nekk foofu la ca Italie voilà moom itam day dañu ko dal di dàq ci li nga xamante mooy regroupement yi tey jii la ñu ko dal di génnee gannaaw bi nga xamee ne kat demoon na ba teew ci li nga xam ne mooy regroupement yi commencé sax li nga xamante ne mooy tàggatu yi waaye nag dañ ko caa seppi ni weñ ci soow li ko waral nee nañu nag dafa dal di dégg nga maam saaga ki nga xamante ne moom la ñu wax Juan Jesus Juan Jesus nekk ki nga xamante ne ab défenseur la foofule voilà ci équipe bi nga xamante ne mooy Napoli Juan Jesus moom sax ancien joueur Inter Milan la jamono bi mu ca Napoli kii xibaar dañoo xam daal ki nga xamante mooy Acer bi kàddu yooyu nga xamante ne ko ci moom jublu ci lu dul xeeb ko voilà loolu tax mu dal di koy dégg maam ak kàddu yooyu nga xamante ne yu ñagas la ko dal daal di jàppee mu daal di koy bolé ak ki nga xamante ne arbitre bi waye nak mbir momu deng melni mel gaay ne nañ ci jog ndax ki nga moy bi convoqué won nañ ko équipe nationale bu Italie mo ngi won ci entraînement waye tay ji dal lañ ko daal di dàq moom mu di cay génn bokkatul ci li nga xamante moy match yi nga xamante ne di wa Italie ñu ko wara amal ci bés ñu dëkkmal indi nañ ka nga moko wara wutu mooy Gianluca Mancini Gianluca Mancini mo koy remplacer kon ci li nga xamante ne équipe nationale bu Italie mom défenseur Inter de Milan bi le bu ñu sokkas ndako ci taskatu xibaar keneen koo xamante ni moom itam dafa dal di génn ci match yi nga xamante ni ñoom waa Brésil war nañu ko am mooy défenseuru Arsenal bi nga xamante ni moom la ñuy wax Gabriel Gabriel kon bokkatul ci match yi Brésil waaj amal ci bés yi ñu dëkkmal nga xamante ne benn bi mu ngi war a dox seen diggante ak ñi waa Espagne foofu la ca Bernabeu voilà moom nag dañ ko convoqué woon waaye daal nañu dafa am li nga xamante ne mooy ab gaañu gaañu gaañu gaañu boobu nag nee nañu tax na ba du mën a bokk ci match yooyu nga xam ne Brésil war na koo am voilà jamono bi sax woo nañu ki nga xam ne moo koy remplacer mooy défenseur Juventus bi nga xamante ni moom la ñuy wax Bremer kon moom la ñu convoqué ngir mu remplacer kooku nga xam ne voilà mooy Gabriel bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar Chelsea football club li ñu bëgg mooy dal double salaire ki nga xamante ni moom la ñuy wax moom nag jamono bii de nee nañu lu toll ci fukki bal ak lu topp dal dina koy am voilà ak Chelsea football club ak i passe décisif match bu ñëw mu gën a boppam moo tax Chelsea football club de ci weer yu néew yi nga xam ne dal dina ko fay def moom gone gi jógee cinquante mille de livres sterling par semaine loolu nag li ko waral du dara lu dul mbégte mu ñu am ci gone gi nga xamante ne Cole Palmer ak xarañte gi nga xam ne mu ngi koy wane ci équipe boobule ba ñu sukkandakoo ci taskatu xibaar yi moo ngi noonu gars tënk la woon rek ci xibaar dinañu dellu siwaat ak yeneen i info kon ne di topp Sen Sport 221